إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا booy xamee ni njabarkat yi ak buxaabakat yi ñii lu ñuy wax lenn du ci dëgg donte ni des fois seen wax xaw a dëppoog benn dëgg ak yooyu mais moytu leen ñii fu ñu la yóbbe jàmm amu fa subhanallah fu ñu la yóbbe aljanna jegew fa ñii lu ñuy woote moom mooy mbir moo xamante ni yàlla rek ko xam qul laa yaalamu man fi samawati wal ardi al ghayba illa allah yàlla rek ko xam moo tax nañu moytu ñii safara la ñu yóbbe nit ñi mas naa dem sam benn kër xarit benn waay ñëw fa subhanallah di wax naan genre moom waa mën na jàppale nit ñeek genre jabar affaire yooyu après mu mu ne sama xarit bi waxal sa xarit bi bu fekkente ne bëgg na mën naa ko dimbali fekk vacances laa demoon Sénégal maa ngi jógee France déglu leen bu baax mu ne neel sa xarit bi en fait na sama xarit na ma wax man su fekkente ne bëgg na bëgg naa mu jàppale ma ngir ma dem Europe après ma ne ko non man France laa jóge mu ne ah ok xam ne buntu boobu baaxul mu ko quoi après mu toogaat tuuti mu ne waa soo bëggee mën na la jàppale nga dem màkk après sama xarit bi ne ne ma eh, yaa xii ñaatoon nga dem màkk ma ne ko ah yaakaar naa ay cinq wala six fois alhamdulillah mu ne ah ok xam ni foofu tamit baaxul mu jéeg-jéeg ne mën naa la jox benn ñaan boo xam ne mën nga ci protégé wu ma ne ko non yonent jàngal nañu ñaan yoo xamante ni yow da ciy protégé wax ma la yow rek mais même sa njaboot après ma toog tuuti rek di génn di rek mu rek mu daw dab ma ne ma waa dimbali ma waaye nga bindal ma ñaan bi dem jëli ji benn big ne ma bindal ma ko te boo ko bindee nga maas ko ma ne xoolal ma ñii rek naxaatekat yi subhanallah moo tax nañ leen moytu nañu sax ci alxuraan ak sunna nañu alxuraan ak sunna doy gis nga lu mu metti metti metti na la alxuraan ak sunna doy jàppal ci alxuraan ak sunna booy dund alxuraan ak sunna dee na la fekk ci alxuraan ak sunna yàlla nañu yàlla teg ci alxuraan ak sunna yàlla na yàlla jël suñu bakkan fekk ñu ngi ci alxuraan ak sunna ndax kat yoon boobu mooy yoonu aljanna beneen yoon bu dul yoon boobu rek safara lay yóbbe nit yàlla nañ ci yàlla musal kon njabar dafa xaraam dem ci kat dafa xaraam dem ci seetkat dafa xaraam sandikatu pettaaw dafa xaraam wala koo xam ne ay ay ay wëñ lañ lay jox naan lan ay takk ay mbir yu mel noonu wala ngir sa doom euh, ba ñu mën a génn ainsi de sa doom ba mu nekkee ci biir bi mais ba mu juddoo kan moo ko jox ay bët kan moo ko jox tànk kan moom moo ko jox bakkan kan moo ko jox baat kan moo ko jox yooyu yëpp hmm, c'est illogique kon nañu moytu yooyu mbokk yi ndax kat bàkkaaru bokkaale mbokk yi jëf joo mës a jëf jëf boo deewaaleeg bokkaale loo mës a def ci lu baax perte nga ko muy jaamu yàlla boo mën a def perte nga ko te nag safara ngay dugg te fa ngay sax nag ba faw yàllaa ko wax ci alxuraan dem leen ci alxuraan ci suratu nisa dem leen ci alquran ca suurat ma ca suuratu maida yàlla mu ne innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna wa mawaahu nnaar wa ma lilzalimin min ansar képp ku bokkaale yàlla dee ci waaye nit ki bu tuubee moom avant muy dee yàlla mën na ko jéggal yàlla daf ko koy jéggal subhanahu wa taala ndax inna allaha laa yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna dalika man gis nga yàlla boo tuubee mu jéggal la boo dëggoo waaye nag boo deewee ci loolu yàlla nee na yow fa innahu man innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna gis nga harrama allahu alayhi aljanna wa mawaahu naar aljanna xaraam na ci yow te nag sa dëkkuwaay mooy safara subhanallah yàlla nañ ci yàlla musal kon nañu moytu dem ci gisaanekat seetkat sandikatu petaaw takkal mu ku lay takkal ay ay ay ay wëñ xam nga koo xamante ni mbir yooyu wala naan la na nga sangoo mbir yi bokk